sëñ Moustapha Diatra mi nga xam ne moom mooy suñu buntu ci liggéey bi nga xam ne bokk na ci cër yi ñi sëñ Tuubaa dimbalee dañu yëgal suñu bopp ne bokk na ci tawféex yi nga xamante ne nii lu ñu sëriñ Tuubaa gàttandoo la waaye bu doon jomb dañu naan jomb nañu waaye nag tawféexi sëriñ Tuubaa la di ko jottali loo ak cant akuk ñaan mu jëmel ni ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu boroom sàmm ko aar ko ba lépp lim yéene liggéey lislaam yéene ko liggéeyal maamam ju tëdd ja Cheikhul mu def ci lu jortul lu kawe jullit yépp te suñu liggéey bi di xidmatul xadim nga xam ne ci ab jataayam la ko Serigne Touba feeñale mu doon jumtuwaay bopp dafa nam ma jóg taxaw ànd ak moom ci yan bii nga xamante ne nii moom la ko Serigne Touba yan bu ëllëgee ca bis ba muy dajeeg maamam ju tell ja nga xam ne bis boobu da ko yitteel liggéey bii suñu mbooloo mi yàlla na bokk ca mbooloo ya nga xamante ne nii dina fa si gël Cheikh Mamadou Mountakha lool daayira bi nag niñ ko waxee. mooy daayira delloo sëriñ bi njukkal la ndax mbooleem ku nekk fii ci barab bi ak ñiy dégg suñu kàddu te teewuñ benn pas-pas lañu am muy kenn ku nekk yëg ne sëriñ tubaa defal na la ci dëkk bi teraanga joo xamante ne nii ci mécc mi nga yor wér na leen tawféexi sëriñ bi la ñu toog ba yëg ne kon kat li ñu ci war mooy ni nga xamee ne turu menuisier métallique wala aluminium wala inox fépp foo xool sa bët ci dëkk bi mu fés fa ñu ne loolu nañ ci sukkandiku fexe ba noonu ñu fesee te sëriñ bi am waar wu rëy ci loolu ñu fax fas yéene ko faa féete bi yàlla dogalee ñu def ci ay waxtaan dem ci sëñ Muntaxa fekk ko poroxaan yaakaar naa deux mille dix neuf ba ñu demee it leeral ko ne ko mboolem sa njaboot gi nekk Touba te doon ay menuiserie métallique di yëngu ci weñ gu ñuul ak inox ak aluminium góorgóorlu nañ seen ndimbal ba lëkkale sa njaboot gi yëpp ñu doon génn buum fas yéene ànd ak yow doon sa jumtukaay ci liggéey bi mu nangul ñu ko ca barab bu tedd boobee tuddee ko. xidmatul xadiim bi ñu ñëwee tamit pas-pas boobu la ko waraloon mooy màggaluk Serigne Touba gi nga xam ne bu egsee murit yépp ci la ñuy feeñal seen yéene ñu ne kon nañuy taxawale daayira bi ginnaaw boo bindoo am carte membre ñaar téeméer dañuy fexe membre bu ci nekk weer wu jot nga joxe ñaar téeméer bu at mi dellusee muy douze mille ñu dajale ko dugg ci kër sëñ Tuubaa yi buñ fa gisee selliir bu yàqu wala weer bu toj wala musikeer bu bënn ñu defar ko kon loolu moo doon pas-pas bi mel ni bi ñu jógee jëm ci loola it li sëñ Muntaxa di wax rek sëriñ Tuubaa moom boo jógee jëm ci moom dalay gatandu bi ñu ñëwee ba dëgmal loolu jumaay Tuubaa ji lañu njëkk a dëgmal sëñ Tuubaa joxoñ ko ñu ñëw am ay entretien yu ñu fa doon def ci bunt yi nga xamante ne nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma moo ko fa defoon biñ ca jugee daal di engagé kër sëñ Touba gii ci eh, kër kër gu mag gi ak gaaraasu benn ak daaru marnaan muy wàccaayu màggal wi mel ni biñ ca jugee it kenn ku nekk yëg na sa bopp ne war ngaa gën a farluwaat ci liggéey bi ñu ne ah bunt bee nekk bàq yakat war nañ faa dem xool ko ndax barab la bopp murit yépp dañ fay daje te barab ba mel na ne buntu ba xaw naa am ay ayib ba ñu demee xool buntu ba xool ne defaraat ga mën naa ne waaye mën nañoo fexe ba mu doon bunt bu méngoo ak jamono muy bunt boobu ba ñëwee waxtaanaat ci mbooloo mi yàlla dogal ñu am ci tawféexi sëriñ bi ba bunt ba mel noonu ñu ñëwaat daaray kaamil gi lépp ci coobare sëriñ bi fekk fenêtre yi fi nekkoon di ay fenêtre yi ko ñu ne woon dañuy ñëw ngir saytuwaat ko seet nañ ko waat bi yàlla dogalee ñu am pas-pas boobu ñu yëkkatiwaat suñu tànk ba ci sëñ Moustapha mii laaj ko ci ndigal mu may ñu ndigalul nañ ko def entretien bi ñu ñëwee ci mbooloo mi waxtaan ci ak moom ak ñoom ñëpp maase ne comme ba jamono bañ ko fay def dañoo seetoon fi jamono toll muy la gën ñu def ko fa kon mel na ni fii jamono toll amul kenn kuy liggéeyati nag ko kon nañ laajaat nañ nañ ko fexee def ay ay fenêtre vitre ci jëwriñ ne kon kat comme lépp mu murit daa baaxoo ndigal te sëñ Moussa bañ fa demee ndigal lañ fa jëlee woon mooy entretien dañuy dalaat ba ca moom xamal ko passeport bi nga xam ne mbooloo mi wax nañ ko ba ñu delloo ca moom mu nangul ñu loolu moo waral liggéey bi egg si fii tey ñu ciy sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. di ñaan képp koo xam ni jàpp nga ci ak noo ci jàppee sëriñ Touba bi tax nga jàpp ci gis na ko tey delloo ko njukkal dong ngay def di jaajëfal suñu mag ñu baax ñi tamit di tuub kàddu yi nga xamante ni tamit dañ koy faral di yëkkati ci seen kanam waaye mu doon kàddu yu ndigal ndax ñoo gën a xeebu ci jataay bi waaye mel ne bu ñu dajee ngeen yëkkati seen i kàddu seet nu mu rafete ngeen dénkuñu ko te bu ñu toogee fa ñu war a waxee mel ni li ngeen ñu wax ci ay kàddu yu yu yu taw féexe yëpp dinañ lot suñu làmmiñ ngir génn ko kon loolu rek moo ciy sant li ci desit moom lu ci rafet ñu xam ne Serigne Touba mi ñuy liggéeyal moo ci gàttandu lu ci xaw a doy waar ñu jàpp ne bëggoon mu leer rek ak matériel doomu aadama moo ci yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi ziare mbokki jullit yëpp di jiital ci ziare bi. sëñ Moustapha Diatara mi nga xam ni mooy kilifa ak jataay bi di ci teg suñu mag ñi nga xam ni euh, ñoom la àndal liggéey bi comme ni ko maam Thierno waxee ñun ñi gën a tuuti ay at ci jataay bi ci lañ bokk te ñi fi ne ñëpp suñuy kilif lañ euh, loolu sëñ bii toog ci seerale ci ndax moom mooy ki ma jàngal métier mooy sëñ Modou Mbacke Thiam bi kon bu ñu jëlee ay kàddu di ñu ko cëralee. xanaa day digal rek moo tax waaye waruñoo taxaw ci seen kanam di wax kon ñoo ngi siyaare ñëpp euh, di jéggulu bu baax a baax waaw di ñëw ci li nga xam ni mooy li ñu féete woon mooy li ñu cërale woon muy wàllu organisation bi ku ne xam na ni euh, liggéey bu toll nii mënee su koo def ca organiser wuñ ko euh, loolu nag taxoon na ñu féetale woon ñu ci wàllu organisation bi loolu ñu am commission bu ñu ci àndaloon ñu def ci liggéey bu am solo Euh, mën nañu wax barab bi xam naa liñ fi ñëw ñëw nañ fi ay yooni yooni yoon loo xam ni buñ ko doon li mën naa ëpp fukki yoon lépp rek ñu jublu ci bu ñu ñëwee ci liggéey bi ñu defe ko ni ni nga xam ni mooy ni mucc ayib loo xam ni du am benn jafe-jafe ci liñ bëgg yépp ñu am ko euh, rawatina euh, fii noonu nag lañ lañ ko tàmbalee woon fële ci Daaru Marnaan ca Daaru Marnaan it dañoo organiser woon benn atelier bu mag def ko ñetti pàcc pàcc bu ci ne ñu am lu ñu leen cërale ba yàlla dogal lu tolloo quatre-vingt-cinq fenêtre ñu mën koo defar ci benn bëccëg nga xam ne laataa dog di jot ñu ëpp ci jataay bi ñëpp dem na ñibbi dogg seen kër loolu nag organisation rek moo ko mën a maye. loolu it noonu lañ def bi ñëwee fii fii tamit bi ñëwee dañoo xool ni juróom-ñaari saal ñoo fi nekk ñu def ko ci euh, juróom-benni group groupe bu ci nekk. ñu am luñ la cërale bu dee fii ñi nga xam ni mooy wàllu démonter vitres yi dafa am groupe bu ñu ko féetaleel ñi nga xam ni ñooy découper traverse yi fi nekkoon ñu am ñun ko cëralee ñi nga xam ne ñooy poser ñu am ñun ko cëralee loolu moo tax ñu man koo def ci diir bu gàtt te liggéey boo xam ni liggéey bu tega ci yoon la boo xam ni mel na ni nga xam ni noonu la war a mel loolu mooy li nga xam ne noonu la ñu organiser mbooloo mi ñoo ngi ziare bu baax a baax nag di ñaan. Euh, jataay bi yàlla na doon ay jataay jataay ten daje jeg tawféexu sëriñ bi ak ndimbalam wasalaamaaleykum wa rahmatullah di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal daayira bi di tàmbalee ci bureau bi ak mbooleem ku bind ci daayira bi li euh, nga xam ne nag mooy objectifu daayira xidmatul xadim sëñ moom Thierno ubbi na ci lu bare bare bare bare waaye objectifu daayira xidmatul xadim mooy ay ndaw yu jug ngir ànd liggéey sëriñ Touba ci li nga xam ne moom la leen yàlla wërsëgalee muy wàllu métier mi muy aluminium inox ak métallique ñu dem ba xam ne euh, jot na ci ñun ñu njukkal bi ci li nga xam ne moom la leen yàlla wërsëgalee di jëm ci aluminium inox weñ ci dëkk bi ñu xam ne sëñ bi daana ko yittewoo ci dëkk bi ñu dem ba xam ne euh, sëñ bi da ko daan di ko jëggaani ci bisu fenn fu sori ay dëkk yi fasantikoo ñu dem ba xam ne ñun doomi réew mi lañ te doomi dëkk bi lañ boole ci ñu xalaat ne jot na kon ñu taxawal loo xam ne nii mooy ab daayira Xidmatul Xadim comme ni ko maam Thierno leeral léegi euh, gannaaw ba sëñ bi tuddee aw tur Xidmatul Xadim waaye euh, daara bi li nga xam ne mooy objectif mooy jumtukaayu sëriñ bi lañ li nga xam ne moom lañ fi réalisé lépp sëñ maam noo tudd na ko waaye daara bi moom euh, li nga xam ne mooy jëfam dëgg-dëgg mooy tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi. li nga xam ne nag moo ci gën a ëppal njëriñ ci ñu ñi nga xam ne mooy ñun mboolem corps de métier yi mooy ñu ab soññewaat la ci boo xam ne ñu gën a jàppaat daara bi gën a jàppaat liggéey bi. te xam ne liggéey bi bi ñu koy sos lii yaakaar naa sax mën na ka taxutoon liggéey bi jugoon li nga xam ne moo ko taxoon jug mooy entretien kër Sëriñ yi ak jumaay Tuubaa ji ay lii yëpp ay tawfeexu sëriñ bi loo ne dañoo dab ci si biir liggéey mooy lu mel ne bàq ya lu mel ne daare kaamil yooyu yëpp dañoo dab ci biir liggéey bii waaye sëñ bi loolu dañoo koy seeral baax te xam ne liggéey bi li nga xam ne moo ko taxoon jug mooy sax màggal bu jub seetee ñu dajale suñu ñaar fukk ak suñu junni li nga xam ne mooy entretien kër Sëriñ Tuubaa yëpp ñu defe ko ni ko sëñ bëggee loolu bokk na ci li nga xam ne mooy mooy objectif u daayira Xidmatul Xadim daayira bi nag objectif bi bokk na ci corps de métier lañ soxla daayira bi liñ ci soxla euh, du daayira xeet du daayira askan du daayira dara daayira corps de métier la muy ouvrier yi métallique yi métallique yi rek kuy liggéey aluminium inox fer mooy corps de métier yi keneen ku dut corps de métier nag euh, ak noo ci ñëwee bu dee àddee joo ñuy jox danañ la ko nangul ngir addiwu kenn waxeeb foo ko jëm fi la ko defal waaye amaa nag euh, lu jëm ci wàllum boobu naa loolu ku ci am ay bëgg renseignement it numéro yi ñu dugal doxaloon sànq ku ci bëgg ay tegtal dinañ la ko leeral waaye daari moom li nga xam ne mooy objectif am mooy daari la bu jóg ngir liggéey sëriñ Touba ci dëkk bi tàmbale sëriñ bi yem ci Serigne bi màggal Touba yi nga xam ne moo taxoon ñu sos ko ñu ngi koy soññawaat te di ko fàttaliwaat te xam ne gannaaw bi ñu génnee jumaay Touba ji génn euh, kër Serigne Touba génn bàqiyeet ak fii daare kaamil li nga xam ne moo nekkaat suñ kanam comme mbooloo mi ñëpp toonañ mooy màggal Tuubaa la moom lañ dëgmal nga xam ne moo taxoon ñuy liggéey liggéey bi waaye lii nag day lu ñu fi dab loo xam ne tawféexu sëriñ bi la ak jàppandal goo xam ne nii yàlla dogal na ni ñu ko bëgg ñëpp ñu ngi koy amee noonu kon it loolu ñu gën koo bàyyi xel baax a baax te xam ne daayira bi moom euh, du daayira boo xam ne nii day dajale fond xaalis ba daale buy jëm ay aide la xool ba xam ne soxla nañ ko lu mel ne daare kaamil bi bu ñu ba xam ne euh, xool nañ ne fanweeri ñi fi newoon ci ay nàkko la lii lañ xool ne moo fi gën a yàlla dañuy dem xool loolu waxtaan ko ak waa bureau bi xool lu koy liggéey ñu mën koo xayma xool daare bi ñaata nombre fi am te su ma juumut jàpp naa li fi nekk ci bi su jegewut 400 war naa mat 500 personnes bu doon 100 millions lu mu dañ koy diviser par li fi nekk nombre mën koo xool bon xool lu koy liggéey bisu boobu ñu wàcc terrain bi. waaye daara bi amul budget bu mu denc boo xam ne nii danaan budget bi lay liggéeyee déedéet lépp luñ soxla dañuy wàcc jaayante ko ak suñ mbokk taalib yi xam ne ñoom la seqal jotaay bi ñëpp ñoom it ñu nekk nit ñoo xam ne nii nit ñu nangu lañ te euh, woo gi leen woo suñ Tuubaa woo ñu leen su suñ bopp ndax képp ku ñu dem ci dañ laa wax na kat dafa am mbir mu ñuy taxawal muy ànd liggéey sëñ Tuubaa nga rafetlu ko lool ne bind leen ma ndax liggéey sëñ Tuubaa képp ku ne kenn ku ne war na la nga def ko kon it euh, laaj bi ñu leen doon laaj muy addi ji doon laaj Euh, ndax ab ànd li ko yàq de laaj lu lu ñu am di ko def xam li leen doon laaj lépp fii déw lañ ko jëmee bépp dërëm boo xam ne nit joxe na ko ci mbooloo mi am na ci ñoo xam ne nii ban ne àddee Sëñ Tuubaa lañ ko génnee alal jooju ñëpp ko seexlu kenn bëgg ko laal kon it ñi nga xam ne dañuy dégg euh, turu xaalis bi ci def ak li nga xam ne mooy financement yi ñu xam ne lépp ñun daanaka boo xoolee daayira bi li muy wund rek mooy àddee Sëñ Tuubaa lañ daayira bi ma xidmatu xadim addi Sëriñ Tuubaa la ndax li tax mu nekk addi Sëriñ Tuubaa mooy ci sëriñ bi lañ koy jëliat ci lañ koy delluwaat kon loolu jàpp na addi Sëriñ Tuubaa la waaw loolu it daanaka ñun ñëpp ñu gën cee laxasuwaat koo dégg daari bi fenn it nga gën cee jàppaat te xam ne boo ci jàppee sab-sag la boo ci jàpput it sab-sag la nga xam ne xidmatu xadim ubbil na ay buntam képp ku yor pince aluminium inox ubbil na la say bunt pour nga ñëw ànd ak moom liggéey Sëriñ Tuubaa bi sëñ bi di la seerlaal di ne la nga gën ñoo defal ñaan gën ñoo sécuriser nga ñaan la ko suñ tubaab it xam naa it moom defoo nga loolu li ñu bëgg am waaye suñ mbooloo mi ñaan yàlla mu am sécurité boo xam ne nii kenn du ko mën a yàq taxawaay bi ñu am ci liggéey suñ tubaab bi ay ndaw lañ di tuub kàddu gi nga xam ne maa ngi ko yëkkati ci samay kanam kilifa ndax euh, tey lu mënta ñàkk waaye ñaan nañ yàlla daayira bi fépp fu ñuy dégg ab daayira ci àdduna buy liggéey Sëñ Tuubaa suñ daara bi dem ba kawe lu kawe suñ si jot loolu it koy ñaan yàlla te xam ne eh, man ngeen ko moom dañu leen koy dagaan bu baax a baax a baax a baax a baax loolu daal bëgg nañ ko kàddu yi moom kàddu yi sant la ak gërëm mbooleem kilifa yi nga xam ñoo fi nekk ñëpp di suñuy waajur ñëw leen di baal àq bu baax te di leen baal te xam ne liñ leen di wooy li lépp li leen sonal ak di leen déplacé dañuy liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ko waral waaye eh, bu leen ci wooyet am yenn oyof wàccaat seen bopp ba maasee seen bopp te lépp lu waral loolu lépp mooy liggéey bi kon it euh, xam-xam bi ngeen def ñun ak euh, yar bi ngeen def ñun ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla leen ko yàlla delloo fay ko seen njaboot ba li ngeen bëgg lépp suñu borom mën leen may kàttan li ci desit mooy samay bopp morom yi bopp yi nga xam ñoom laay euh, tollool jamono di leen gën a soññaat rek ñu gën a góorgóorwaat ci kilifa yi ak seen patron yi pour ñu gën a jàppaat seen patron yi baax a baax a baax gën a góorgóorwaat surtout ndax euh, yaakaar naa njaatige lu am solo la ndax bokkutoon ci li waaye dama koy lancé wàlle comme ñëpp ma fi toog ñu gën cee bàyyi wàlle xel bañ a yàkkam ci métier mi gën a téye métier mi te xam ne métier mi armu la ndax arme mënut a weesu moom bay nelaw yaa ngi koy njege naa yow commerce mu mën ngaa am fukk jaay juróom waaye lii arme la boo xam ne kenn kuy nelaw yaayu moom kenn ku nekk la yàlla booleel muy sa bunt ci sàkku xam-xam na ko fonk waggar ko jox ko boo xam ne da ko def ni sa wajur boo ko defee bu ëllëgee suñu boom dina la kàttan ba lépp loo bëgg di ko am loolu it maa ngi koy soññaat ñi nga xam ne ñoom laa maasee jamono ñëpp ñu gën a góor góorgóorluwaat seeni patron respecté waat leen ndaw du dara patron du dara loolu xam ne lii la waaye lu yëpp daal ab soñña la boo xam ne nii maa ngi koy lancé walla ci biir ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax waaye màggal gi it ñu ngi koy soññiwaat màggal gi ñu bàyyi xel bu baax a baax douze mille francs yi ñu doon laaj ci màggal gi ñu gën koo bàyyi xel te xam ne liggéey moom ba lii jàllee màggal lañ dëgmal magal moom moo bokk ci programme bi. santaat bu baax a baax euh, jëwri ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi muy commerçant yi nga xam ne ñoo ñuy jaay matériel bi nga xam ne moom la liggéey li jëm ci aluminium bi ak feer bi ak inox bi. gis nañ taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci Xidmatul Xadim te xam ne liggéey Sëñ tubaa rek moo leen ñor ñu xam ne gis nañ ay ndaw yi liggéey ngir Sëñ tubaa ñoom it ñu nekk ay jàmbaar lool ne liggéey Sëñ tubaa bii ñu taxawal bëgguñu kenn ku leen ci man moo tax it bu ñu amee seen fukk ak seen dërëm ñëw tabal ko ci liggéey pour ñu baal leen ko mooy li ma waxoon léegi rek dañuy jaay prix yi nga xam ne Sëñ Tuubaa waaw dañuy jaay prix yoo xam euh, dañ jaay fukk ñoom dañuy jaay juróom ngir Sëñ Tuubaa am ñuy jaay ngir bis bi ku ci xëyoon di jëm sa la ko mën a jaay duñ la waaw loolu jàpp nañ ci liggéey jàpp nañ ci baax a baax ci bañ yégee ñu ne liggéey bi ci barabu ci seen ci daara kaamil jëm ñoom dañ lépp luy liggéey Sëñ Tuubaa moom dañ cee def seen wàll loolu it ñu ngi leen koy seeral bu baax a baax a baax a baax di fàttaliwaale màggal gi rek màggal gi daal man moo bokk ci li nga xam ne moom mooy objectif bi taxaw fi mu toll nii ba képp kuy demit nga fànnoo loolu gannaaw bi liy jàllee amaatu fi beneen programme fi amaat tegaat bi benn programme programme bi ñu teg nag mooy màggal Touba gi bi nga xam ne moom la mooy douze mille francs yi weer wu dee mille képp koo xam ne bindoogoo woon nga ñëw renouveler sëñ Modou membre mais bind la képp koo xam ne la tegagoo lépp loo mën a barkeeloo nga barkeeloo ko loolu ñu ngi ciy soññ bu baax te santaat patron yi baax ñu gën a ñaaxaat emprunté yëpp ba fuñ ci mën a toll rek incha allah rabbi yàlla mën a barkeel lépp. ñu ngi leen di nuyu ci turu magi daayira bi di bu baax ci turu daayira bi bu ma toogee fii di wax mag ñi daayira bi ñoo ma fi yebal ni naa leen santal xale yi ndax kat dañoo def lu rëy ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm di leen gën a soññi ci li leen gën a neex ci sant bi nag mooy e, booloo gi ngeen booloo àndandoo kenn ku ne yéene sa morom li nga yéene sa bopp loolu ñu ngi ñaan yàlla yàlla saxal ko ngeen góor góorgóorlu ci bu baax ndax kat àndandoo doole lii ñu am doole ji ñu am tey ji kat ànd bi doo nga ñu ko may ak yéeneente jàmm nañ fexe ba def ko suñu arme góor góorgóorlu bu baax di gisante di waxtaan di déggoo te Eh, lii may wax sax eh, mel na ni nekk na mooy la suñu daal waxoon ni mbay mu nangu xol yu nangu ko gën a eh, baax mel na ni seeni xol nangu na kon ñun magi daayira bi yëpp ñu ngi maas di leen gërëm ci loolu di leen sant di leen ñaanal di ñaan yàlla daayira bi egg fi daayira yëpp di egg te ñaan yàlla musal ñu ci am ndog ak seytaane lépp lu ko yàq rek yàlla nañ ko yàlla musal kon ñu ngi ñu ngi sant bu baax ci turu mag ñi di leen ñaanal loolu lañ ma waxoon ma euh, wax leen ko sant leen gërëm leen xam ni yéen a ngi ci yoon woo xam ni daal bu leen ko bàyyi na yokk waaye bu mu wàññeeku loolu rek lañ leen di sant di leen gërëm fu ñu toll nag ñu ngi leen di ñaanal te xam ni yéen moom ku leen ñaanal yaakaar naa ni sëñ Tuubaa dana dana nangu ñaan gi ku leen ñaanal tam sëñ Tuubaa dana leen ñaanal waaw kon yàlla nañu yàlla boole ngërëmal sëñ Tuubaa rek ñu am ko ñun ñëpp te fan yu gudd xéewal yu bari Euh, ñu am luñ luñ soxlaatee rek ñu am luñ ci def waaw barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf euh, di leen nuyu di leen jottali ay ngërëmam ak i cantam ci taxawaay ak liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la daayira xidmatul xadim bi nga xam ne ñiy liggéey ci wàllu métallique ñoo ko sos te li tax ñu sos ko mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ci wàll gi nga xam ne ñoom mooy seen métier ci lañ gën a mane xolam sedd na ci lool ndax moom li bëgg-bëggam lépp moo di taalib yi daje nekk benn àndandoo ñoom ñëpp di yëkkateendoo di tegandoo te lépp jëm ci sëñ Tuubaa sëñ moom loolu dong moo ko itteel moom ittee àddunam jëpp jëpp jëpp mooy ne nit ñi ànd nekk benn te lépp nag jëm ci sëñ bi sëñ Tuubaa rek moo ko ñor leneen ñoru ko yi fi nekk ñëpp xam nañ taxawaayam gis nañu ko dégg nañ ko xam nañ ci moom lu leer nañ xam nañ fi mu jëm ñëpp xam fi jëm fi mu moom mooy liggéeyal sëñ Tuubaa nit ñi itam mu fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ci nit ñi liggéey sëñ Tuubaa ci nit ñi fexe ba nit ñi xam kan mooy sëñ bi fexe ba nit ñi xam kan mooy eh, mooy lislaam fexe ba nit ñi itam xam li leen war te kenn ku ne boo xëyee nga nekk ci sëñ bi moom loolu rek mooy itam kon nee na mi ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant ci pas-pas bu am solo bii nga xam ne moom ngeen def ndax li ngeen def lu am solo la lu rëy la ndax daayira fokk ma wax leen tuuti rek ci cosaanul daayira ndax nit lu mu nekk war na koo xam daayira daanaka bi muy sosu dëgg-dëgg ba mel nii ay boori 1935 ak yooyu la daayira yi tàmbali la daayira njëkk a tàmbali daanaka xëy na amoon na daayira bu jiitu boo xam ne masoon na fi am boo xam ne sëñ Modou Moussa la ñu waxoon ne mooy président ba sëñ Fallou nekk vice président njabootu sëñ Tuubaa gépp dañ caa bokkoon booba ba tey defe naa archive yooyu am na ci yu fi nekk sax ba tey waaye nag bi ñuy taxawal nag daayira yi dëgg dëgg dëgg nag ci jamono yi sëñ Cheikh Mbacke radiallahu anhu daanaka mën naa wax ne booba nag lañ ko taxawal ba nga xam ne nit ñi nag xam lan mooy daayira dayre baat bi arab la mooy nit ñu toog wëndeelu nii nga xam ne kenn du xam kuy njiit li xam nga ay nit buñ toogee niiw wër wër nii mel ni ni ñuy jàngee kuréel kenn mënut a xam kan mooy njiitul njiital mbooloo bi ñoom ñëpp dañuy yem loola lañ jublu woon ci da moo di dara mënut a ñàkk njiit waaye nag bu ñu toogee moom day mel ni ñëpp ñoo yem te ñëpp a jàkka ji dafa munta ñàkk rek ilimaan waaye nag ñi fi toog ñëpp nag ay taalibe rek lañ kenn ku ci nekk boo ko wooyee ak taalibe képp la lay wuyoo waaye du la wuyoo leneen loolu nag bi mu amee euh, dox na ab diir waaye nit ñi xawoon nañu réere nag lu tax daayira jóg ndax mbooloo bi dugg nañ ci yoonu murit ci wàllu gu nekk ak ci réew mi ak fu ne waaye nag lu leen buum gu leen téye takkee leen amut te loolu mënul nekk mbooloo moo xam ne ay millions lañ te dara takkewu leen dara boolewu leen te bokkuñu dox gox yuñ dëkk bokkuñu métier bokkuñu euh, ñii ay gone lañ ñii ay mag lañu ñii borom métier lañ ñii ay baykat lañ ñii ay sàmmkat lañ ku ne da nga am say métier bopp te bi ñu defee daayira bi itam mooy luy taxawal yoon wi maanaam luy projet yi yoon wi am projet yi nga xam ne moom la yoonu murit am te jamono booba bi projet bi ci gën a rëy mooy jumaa ji projet bi gën a rëy ci yoonu murit mooy jumaa yi sëñ Tuubaa ji nga xam ne moo doonoon ndigalam ak màggal gi ñaari projet rek moo fi amoon booba màggalu Tuubaa ak jumaa yi Tuubaa ñoom ñaar ñoo doonoon projet yi gën a mag te yooyu alal ju bare bari la laajoon ak xalaat bu bari ak xam-xam bu bari moo ko doon war a def ndax jamono yooyu tubaab yi ñu ngi fi jamono yooyu ay jafe-jafe yu bare bari moo am ci réew matériel yombut maçon bu la liggéeyal sax walla menuisier bu la liggéeyal sax bu qualifié yombut fi yoon ba gis ngeen jumaa ji ay tubaab ñoo ko tabax architecte bi Italie la bàyyi ko man xamoon naa ko waaye ñi dëkk ci biir dëkk bi ba amu ci woon daanaka bariwu ci woon loole nag eh, ci biir jumaa ji bi nga xamee ne mi ngi daal noppi nag am ñoo xam ne sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa dañoo laajoon kilifa diine yi kili cheikh yi cheikh bu ne na doxee joxe nangami nit yoo xam ne ñooy nekk ouvrier yi ouvrier yi war a yor liggéey bi nga xam ne moom dañ ko waroon a wuti sëriñ si cheikh yi ñoo ko wut kenn ku ne ñiy joxe benn nit ñiy joxe ñaari nit ñiy joxe fukki nit ba ñooñu ñoo yoroon noonu nekkoon ouvrier yi jumaa ji dégg nga loola am na ñoo xam ne tey jii ci biir Touba ay mason lañ ñii ay menuisier lañ ñii ay ébéniste lu ne lañu métier mu ne yor nañ ko te ñooñu ñëpp seen métier ñi ngi ko jàngee fii ci jumaa ji ñoom ñëpp ci jumaa ji lañ jàngee métier li ëpp ci ñi jàng métier ci biir Touba ci wàllu métier yooyu may tudd ci jumaa ji lañ ko jàngee loolu nag bi mu amee nag kilifa ko benn sëñ Cheikh dafa bind wane ne daayira nag li tax mu jóg mooy fexe benn le taalibe yi ñu nekk benn loolu mooy njël benn jublu bi moom na taalibe yi nekk benn ndax xam nañ ne luñ mën a def te taalibe yi ci seen bopp nekkuñu benn di dóorandoo di xëccandoo ñoom ñëpp nekk benn seen kàddu nekk benn luñ ci mën a def ci àdduna rek du sotti ndax mooy di gën a am solo ci àdduna ndax luñ mën a mbooloo luñ bari bari bari te ànd ba ñëpp nekkuñu benn seen doole du feeñ seen mën-mën du feeñ lañ bëgg a def lépp it dana des kon lañ jubluwoon ci daayira la ci jiitu mooy benn la taalib yi ba taalib yi yëpp nekk benn ba ca topp mooy ñoom ñëpp ñu mën a àndandoo liggéeyal sëriñ bi ba lépp loo xam ne taxawal nañ ko muy projet bu taxaw ci yoon bi daayira yi danañ mën a taxaw song ko fi saa si loolu daal di sotti ndax bu daayira yi amutoon kenn ku ne day wax ne man sama sëriñ mooy diw kër kër sàngam laa bokk kenn kër sàngam laa bokk kenn kër sàngam laa bokk te bu ko defee loolu ak teqalikoo day am dëgg la kilifa yi li leen di jox lépp ak cheikh yi lépp dañ koy boolewaat dikk jox ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa mu def ko ci liggéey bi waaye nag dong yi yëpp dong yi sëñ Tuubaa lañ murid yëpp moom koo ci laaj la sëñ Abdou Lahad mii radiyallahu anhu wax eh, te sëñ basiru Mbàkke mi nga xam ne mooy waajuru xalifa bii fi nekk sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu wér eh, dafa am ku mosoon di waxal defe naa sëñ Fàllu waaw sëñ Fàllu la mu ñëw ci sëñ Fallou gane si ko mu yendoog moom ba ngoon sëñ bi ne ko ah man dama bëggoon nga fanaan mu ne ko ah moom day bàkkee bëggoon naa fanaan waaye nag dafa am sama taalibi boo xam ne dafa nekk barab sàngam ma digoon ko tey ne ko foofa fanaan si sëñ Fallou daal di ree daal di ko ah da am ay taalibi fi ne am ngay taalibi fi mu nii ah mu kaf daal di ko ah xanaa xanaa sëñ Moodu Xabaan sax am na taalibe seen doomi nijaay la ñu ñu ñu di ko kafe xanaa sëñ Moodu xaban am na taalibe kooku sëñ Fall ne ko ah dafa nga ne fii ne am ngay taalibe mu ne ko ah waaw mu ne ko ah taalibe buñ la waxee ne la yow lañ gëm dañ lay nax dañ lay nax de taalibe day gëmuñu kenn ku dul borom baraag bii ñoom ñoom ñëpp borom baraag bi képp képp képp képp lañ gëm gëmuñ keneen moom képp lañ yaakaar yaakaaruñ keneen loolu yi nag bay ba nga dem seet li ma la wax sëñ Basiru borom xam-xam la xam-xam bi dafa bari li li mu mu mu dem wax nañ ne ci ci li xam nu mu demee waaye ñu nettil ne am na taalibeem bu mag boo xam ne moom jàpp na ne moom sëñ Basiru kooku bu fekkee am na koo xam ne Euh, pëstéefam mën na koo seere bu wér ni ab taalibe moom kooku moom gëm na ko léegi nag mu di ko sedd ci li nga xam ne moom lay nettali xam nga nettali bi na wér mën na bañ wala mën na bañ a ni ma koy xalaate waaye bi nga xamee ne dem na ànd ak moom nañ ci benn barab ci biir kër gi foo xam ne kenn du fa teg sa tànk daanaka sëñ bi rek moo ko moo fay dem mu am lu mu dindi ci xaalis jox ko ne ko dama bëgg nga gas fii denc ko fii te xool ko nag bu baax ba xàmmi ko bu ma la bu ma la fi yónnee nga bañ koo jaawale ba mu ko defee ba nga xam ne am na bis sëñ bi ci boppam demal fa boppam dindi xaalis ba maaselawaat ko ba mel na meloon mu woo ko yónni ko fa ne ko loolee ma la waxoon demal seet fa ma ko defoon nga indil ma ko mu dem xool gisul dara te xam na ne moom fii moom moo ak sëñ bi rek ñoo fi ñëw mu toog ba yàgg sëñ bi dikk ci sëñ bi ne ko ah man de seet naa ko fa nga ko defoon waaye gisuma mu ne ko ah loolu doy na waar ne moom de foofu rek ñoo fa dem loolu de doy maanaam daal di ko di ko di ko di ko mel ni ko koy tiñal daal ba yàgg nag mu sës ba mu sësee nag taalibe moom bu sësee am na fu mu jëm waaw waaw taalibe <laughs> am na foo xam ne bu fa sësee rek am na fu mu jëm moom ba mu ko xoolee ak lim ko lim bëgg-bëgg ak lim ko gëm-gëm daf ko xool ba ne ko jàkk ne ko sëñ bi maa ngi lay waajal ci jëmmi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom dong laa gëm man te moo tax ma ànd ak yow man jëluma ko suñu <laughs> ko baax baax loolu lu muy wone mooy boobu dafay seet gëm na di sëñ Fallu wax waaye mi ngi xool taalib yi fu ñu ne ba xam ñoom fu ñu ne foofee kookee nekk fële taalib yi yëpp ne kon loolu ngir dajale leen ba ñoom ñëpp seeni xol ak seeni jëf ak seen lëpp dajee ci bu wootee ci loo xam ne ci turu Sëriñ Tuubaa la ñoom ñëpp kenn dootu ci xool fa nga bokk kenn dootu ci xool kuy sa kilifa ak kuy dut sa kilifa la nga xam ne daal moom lañ woote moom dañuy fas yéene amal ko loole it mu bokk ci li taxoon ñu sos daayira nga xam ne buñ buñ ndigalal sëriñ bi jógee rek la ñu war a def ci seen kër sëriñ danañ ko def ba mu mat sëkk waaye du leen yàqal dara ci li nga xam ne moom la ñu war a def fii itam fii it du leen yàqal dara te la ñu war a def ci seen kër sëriñ ndax daayira yi téewut kenn ku ne da ngaa am péete te fa nga féete it nag foofee la sa lépp nekk loole bañ ko defee sëñ Cheikh daal di bind ab benn këyit ware ne daayira nag jërëjëf amiin yaa rabbil aalamiin amiin amiin bi nga xamee ni def na ko ñu ne nag léegi daayira yi dañoo war a gannaaw ñii ay baykat lañu ñii ay sàmmkat lañu ñii ñi ngi dëkk ci dëkku taax yi du ñu ay baykat ñi dëkk ci biir dëkku taax yi itam dañoo am ay métiers yu bokkut ñii ay commerçant lañu ñii ay borom métier lañu nañu xool ñenn ñu ne lañ ña bokk benn métier bu nekk nañ bokk ab daayira ña bokk métier ñu ne nañ bokk benn daayira ba loolee métier moom bu ñu ko soxlaa ci yoon wi dañ koy soxla buñ ko soxlaa ci yoon wi ñooñee ko bokk ñoom ñëpp la ca war lépp ñoom ñooñee danañ ko man te danañ ko mën a def te dana leen yomb ndax xam nañ ko commerçant yi def seen i daayira eh, ñi nga xam ne ñooy borom métier yi ministère yi maçon yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk war a def daayira loole mooy la nga xam ne moom lañ tëraloon waaye nag ci njëlbéen ga doxut doxewut nañ ko bëggee woon doxewut niñ ko bëggee woon eh, biñ demee ba ci mujj gi ci jamono yi sëñ Saliou gis ngeen moom moo yeesalaat loolu gis-gis boobu sëñ Saliou moo ko delloo si yéen ñii ñi fi nekk ñëpp gis ngeen xel koom ci jamono yi sëñ Saliou la daa daayira maçon yi am daayira menuisier yi am daayira ñii karo am daayira menuisier métallique yi am yëpp saa bu ñu leen soxlaa dañuy woo benn daayira duñ fa dajale ñëpp dañuy dajale lañ fa soxla rek ñoo ñooñu dem bu ñu soxlaa ministre yi ñu soxlaa maçon yi ñu dem buñ noppee bu soxlaa ministre yi ñu dem buñ noppee buñ soxlaa ñeneen ñi ci war a topp ak ñoom ñëpp loolu lañ ko organiser ba nga xam ne ci jamono Serigne Saliou nag la organisation daayira yi am daayira métier ci la ci la ci lañ ko organiser dëgg nag ci jamono Serigne Saliou kon loolu ñu gis ne loolu mooy njël mooy mooy mooy euh, li taxoon daayira jóg kon tey jii buñ doxee ba egsi fii yéen ci seen bopp ngeen am gis-gis boobu amal seen daayira bu am solo bii nga xam ne métier la moo xam ne <clears throat> euh, du métier moo xam ne mu yomb la te métier la moo xam ne dafa xew ci àdduna si métier mu xew la moo xam ne dafa ànd ak sunu jamono fi mu toll nii bis bu set ñu gis ci lu yees tey bi ngeen dikkee àndandoo. Eh, fenêtre yi ngeen doon defar e fekkoon ngeen ko mu mel neneen di ngeen koy tuddee nag ko muy loo xam ne ca booba ci jamono yooyu 77 la woon nag ko yii fi nekkoon 1977 moom la fi nekkoon nga xam ne boobaak léegi fanweeri at ak danga mën na ko waaye bañ ko fii def booba rafetoon na lool jekkoon na lool nit ñi ko daan gis day yéeme ci ñoom waaye jamono nag day dox jamono dox ba egg ci tey jii nii nga xam ne tey àndandoo ngeen ba defaat ko mu mel nii rafete nii nga xam ne boo demoon foo mën a demit mënoo gis ak foo man a dem gis fenêtre yu gën a rafet yii moom yombut nii mu nii nii ñu ko liggéeyee ak nii mu amee solo ah yu ko gën a jekk man xaw ma ko te dem naa fu bari nag man wër naa àdduna si dem naa fu bari ànd ak Cheikh Mouhamadou Mourtada fu ne àdduna sépp wër nañ ko waaye daal lu jekkee nii baaxee nii di bariwut ba ah, moom moom ku fi dikk da ko yëg kon xam ngeen ni defal ngeen sëñ Tuubaa lu rëy tey jii te nag defal ko ko foo xam ne muy barab bi ak fi ngeen jaar ba egsi fi wax ngeen ko sànq muy jaaree ci kër sëñ Tuubaa ba egsi ci jumaa ji ba egsi fii loolu di lu am solo waaw di am solo euh, loola nangeen xam ne liggéey boobu seen liggéey bii liggéey benn gënu ko am solo benn gënu koo rëy barki démb dafa am benn téere bu yenn mbokk bind andi ko fii xam ngeen ni fii lépp lu ñuy bind ci biir réew mi te di ko bind ci yoonu murit foo ko nit bindee moo xam France la moo xam itali la moo xam fu man doon Amérique la moo xam ci biir réew mi la ka ko bind dana ci jël ay téere indiku fii ngir bëgg nit ñi jariñoo ko ki bind téere bi lu mu doon lu mu doon bind lan la doon bind maanaam ouvrier yi nga xam ne ñoo doon liggéey jumaa ji moom ci loolu rek la bind ouvrier yi doon liggéey jumaa ji ak ku ne fu mu dëkk ak ku ne fu mu bàyyi ko woon ak kenn ku nekk lu doonoon métier ci loolu rek la bind ñoo xam ne am na ñoo xam ne gën nañ àdduna bu yàgg ñoo xam ne daanaka ba dëkk bi sax xamatuñu leen waaye téere dafay ye mbind day yeesal day mel ni luy door a xew ci saasi ñooñu ñëpp ba jigéen ñi nga xam ne ñoo doon yenu bu wago yi maçon ñëw fii ci bopp raay bi ciment ko daan yenu nga xam ne booba sareet yi sax bariwul waaye ay bopp nit ñoo ko yenu ñi benn saako ñenn ñi xër ba ñaari saako la ñuy di jóge gaar ba di indi fi ñooñu ñëpp seen i tur mi ngi ci biir téere boobu. am na ci ñoo xam ne seeni i sët ndeysaan dëkk nañ fii bu ñu leen koy wax seen yaram day daw. may leen waaw lii lenn la rek ci fayeeku sëñ tuwaa gi muy maanaam doo seen tur dootu fay sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal sa tur dootu fi jóg mukk ci àdduna dafay nekk ba faw ba faw dootu dootu sa tur du farati ci kaw suuf nga nekk fi ak nga ñàkk fee nekk loola muy dox ba nëgën te jëf rek mu andi woon loolu jëf jëf joo jëfal yàlla te yàlla képp tax waxuma laa nga jëfal ko Cheikhul Khadim waxuma laa nag nga jëfalee ko fi mu gën a soxla ndax liggéeyal sëñ bi kat yomb na ma ne sa koo jëfal fu ne waaye nag ñetti barab yi ngeen def de rawatina fii fii Cheikh Abdoul Ahad mi daan wax ne fii la denc sëñ Tuubaa ne fii fi la denc sëñ Tuubaa ne ndax ne gars yi dañuy denc ci banque yi lu ñu am sëñ Tuubaa nag li mu am mooy alquran xasaayiti sëñ Tuubaa yi xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanzil kitaabu wal xadis wal adab laa jamcu fiddatin wala jamcu zahab ne man sama trésor bi nga xamante ne mooy sama trésor bi may denc mooy kitaabullah mooy alquran xadisu rasulullah ak li nga xamante ne moom lay bind muy xasaayitam yu euh, yii nga xam ne moo ko mën naa yóbbu nit ci yàlla yóbbu ko fu sori foo xamante ne kenn mënu fa egg lu mooy kon euh, loolu moo tax sëriñ bi ci boppam sëñ Abdoulaat radiallahu taala anhu ndeysaan waaw góorgóorlu rek góorgóorlu ndeysaan góorgóorlu rek ñu eggale. kii rek gën a loolu nag muy dox ba ci yéen ñii jaare ci mag ñi ba yéen ndaw ñii tey muy loo xam ne ab cër la ab cër la de bu rëy ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa te liggéeyal ko fi mu soxla du caa gën ku ko bëgg rek man ko de déedéet ab cër la. cër la boo xam ne jot ko yombut ku amul positif doo ko jot ndax kat fii ñi fi bëgga liggéey bari ñu bari man danañ bañ ma dalee wax yu mel nii ëpp na juróomi at ëpp na léeg-léeg ay groupe dikk rek wax ma waaye day mel ni man dañuy dem ba yàgg ñoom ñu gisatuma leen man itam dama koy fàtte te duma leen soññi ci yéen laa njëkk a gisee ñu fi dikk fii rek ñu wax rek ci saa si loolee ñu ñu daal di koy nangu daal di koy taxawal mu daal di am nii mu amee mi ngi door man maa ngi gis loolu it li ma gis man bi ma ngeen egsee ñu ci bari xamante guñu xamante guñu woon waaye bi ma leen gisee ak seen positif ak ni ngeen dikkee laa ne ah ñii de wóote nañoo ak ñi fi daan ñëw ñii ma gis nii wóote nañu ak ñi fi daan ñëw kon ñii ñoom liggéey bi danañ ko mën a yoon danañ ko mën a def itam tey nañ ko bëggee danañ ko di defee ngeen dikkit loole ngeen def ko defin woo xam ne mucc na ayib ba ñun ñëpp ñu teg suñu loxo suñu tànk nii loole nag na ngeen xam ne sëñ tubaa ngeen ko teg ci loxoom tegu ci loxoom kenn sëñ ngeen ko teg ci loxoom te nangu na ko itam man awma sikki sàkk ci ni sëñ tubaa nangu na ko te lépp lu fi waaye dagaan tey jii ci yéen ñëpp man de mën naa dogu man sama bopp mais nangeen xam ne sëñ bi moom nangu na ko te nañ teew rek nañ teey nañ teey rek nañ teey rek nañ teey waaw nañ teewlu rek bu defee nag ngeen xam ne liggéey bi xolub sëriñ bi sedd na ci man mii nekk fii itam mu teg ma fi may ay bëtam te sëriñ Saliou Mbacké moo moom andi woon fii moo ma tegoon fii itam mille neuf cent euh, deux mille deux mille quatre la ma sëñ Saliou andi fii te booba maa ngi nekk di ànd ak sëñ Mourtala ci liggéeyam yi ak ci jàngukaayam yi di ànd ak moom di génn bitim réew dem fu bari kere ba ma wooyee ba ma dikk mu ne ma dama am loo xam ne day daf maa ñor lool bii guddi bii sama xel mépp ci la ne muy daaray kaamil ji sama kilifa gu tedd ga di Cheikh Abdoul Ahad di sama lépp nga xam ne gisuma kenn ku ma gën a yey ci moom ci liggéeyal ko dafa def loolu te ñor ko mu ñoroon ko lool te ba fi Cheikh Abdoul Khadir jógee léegi awma ci benn xam-xam ma xalaat nag ma xalaat ne ma jékk ba guddi sama xel sama xel nekk ci yow mii alhamdulilah rabbil alamin ndax lu bari sa waajur àndoon naag sëriñ Fallilou mu jox ko liggéeyu xasaayit sëñ Tuubaa yi ca boobu tubaab yee fi ne xasida yi njëkk a mool sa waajur yow mii moo ko mool bëgg xasaayit yi lool xam ko lool di ko jàngal nit ñi sama xel nag nekk ci yow te séen naa la itam ci yoon woowu ma bëgg nag nga dimbale ma ci teggin yaag baax gaag waxin ma nga dimbale ma ci liggéey boobu quoi Mbacke xanaa mu koy danga dañuy joxe ndigal rek ndax fii ma toog kat boo ma digaloon léegi ne ma xel koom laa bëgg nga yendu ji ma te bul dellusiwaat fii ma rek koy def amul ma ci seet ndax yaay sëñ Tuubaa te bu ma toogee ba am ndigalul sëñ Tuubaa nag man gëmewuma ko mënuma koo gëmee loola keroo la ma jox barab bi ma ñëw fi jox ma caabi yi ma ñëw fi ba ma dikkee jànkoonte naa fekk ay coono yu bare bare bare ndax dafa fekk mu xaw a doy waar waaye lelek nit dikk fi ne ma jànkati tubaab bi toog ba ak ñu ne waaw sëñ bi nooy mën a yore fii ak lii te amul budget buñ lay jox amut solde bu ñuy fay nit waaw loolu noo koy mën a yore ma ne leen ah <laughs> yoon wi day moom noonu la doon doxee beeg fii te loolu yi fas yéene naa doxee it ba man mii wutuma solde séentuwuma ko itam sama waajur mosu koo am xamu ko solde bi de mooy sëñ Tuubaa bi rek am na solde nag solde moom am na xam naa ne moom bu wóor boo xamante ne moom solde la am mooy sëñ Tuubaa mii budget it mooy taalibe Sëñ Tuubaa yi budget bi mooy taalibe Sëñ Tuubaa yi képp loolu yi man mooy sama solde mooy sama budget fas yéene naa nag lépp lu ma ciy def dana sell lool lenn ni caaxaan du ci dugg ndax ku ci dugal caaxaan boo tuut yow du la jig ndax liggéey mag la liggéey mag la de boo xam ne def na fi loo xam ne lu jafe la ndax bi mu koy liggéey moom Cheikh Abdoulaye daraan jóge daraan toog ba yàgg rek mu dugg otoom ne tey mag sàngam lay seeti mag yi fekke woon sëñ Tuubaa ndax mag ñooñu kenn ku ci nekk danga am loo yor loo xam ne loo jëlee woon ci sëñ bi la te yaa ngi ko denc fu sori foo xam ne sa doomi bopp sax doo leen ko woon say doomi bopp doo leen ko woon am na ci mag ñoo xam ne lañ ca denc dañuy dénkaane ne bu ma génnee àdduna nañ ma ko suulaale waaye bu ko kenn gis nga xam ne am na ci yu bari dañ ko suul sëñ day jékk ba yàgg rek mu bett leen egsi rek daal ne ah man de defaral ma ndékki ndékki li ma gën a bëgg nag mooy li nga am ci sëñ Tuubaa nga dikk tegal ma ko fii ma xool ndékki li ma gën a ñor mooy li nga am ci sëñ Tuubaa nga tegal ma ko fii ma xool ko tegalee mbindi sëñ baa ci ak yëpp mu daal ne ko ah lii de moom damaa fa yéene yóbbu ko tudd ma dama koy yóbbu damay liggéeyal sëñ Tuubaa loo xam ne lii mënu caa ñàkk. dama koy yóbbu lim dajale fii foofu ngeen gis muy maqaama lam fi dajale lépp lii Daaru Musti la ko jëlee lii lépp lii feneen la ko jëlee fu ne moo fa doon demal boppam yónniwul kenn ndax bu yónniwul kenn mag ñi duñ ko ko jox bu yónnee woon kenn ku dul jëmmam duñ ko ko jox ak li ñuy li ñuy li ñuy dégg dégg ndigal duñ ko joxe ba fii mu ne rek liñ ci yor kenn mënu ko joxe sëñ bi loolu la liggéeyee fii moom la taxawalee fii famille doomi sëñ Tuubaa yépp kenn ku ci nekk sa doom liñ bind ci salle numéro un ba ngeen nekkoon alxuraan jafa nekk jëpp sëti sëñ Tuubaa yee ko bind waa kër sëñ Suhaybu waa kër sëñ Saaliwu waa kër sëñ Fallu waa kër sëñ Abdoulaye Mbakke waa kër mboolem kuy doomi sëñ Tuubaa rek sa doom bind na fa kaamil magaf waa kër sëñ Baara ñépp a gëf loolee nag moom la liggéey ba noppi nag li am fii lépp mu def ko fi ak xaside yi mu door a jóg nag dem bitim réew ba mu ñëw maam Thierno ñëw mu ne ko dama bëgg a dellu ci réew ma te réew ma bu ma fa delloo dama bëgg lépp lu ñuy wuteeti ci bitim réew ci wàllu xam-xam kenn dootu ko jëgaani kenn dootu jëndib téere fenn lépp dañ koy am fànn yépp am fa mu jox ko alal ju bari lool ne ko wutal ku xam mu dem jëndali ma ko ci réew yu penk yi loolee bañ ko jëndee ba indi ko Mauritanie sëñ bi ànd nag moom ba indi ko ci réew mi waaye yàlla dafa dogal safara lak lépp ba yu ci bare bare sottiwut waaye nag mbirum sëñ bi moom lu nekk ci xelam sax yàlla da koy def waxuma laa lu mu taxaw ne lii day am yéene jooju moom la sëñ Abdoulaat eggalee fii yéene yi sëñ Tuubaa jooju mu bëggoon a amal loolee moom la eggalee fii téere yi fi nekk fii daanaka fànn gune am na fi amut lu fi amut lu nit di jàng rek am na fi loolu nag kon tey jii mu ne fii la dencub sëñ Tuubaa nekk kanzil kitaabu wal xadis wal adab man sama banque sëñ man sëñ mooy téere yi sunu borom yii ak xasaayitam yii ak alxuraanam ji kon tey noo ngi ci biir dencub sëñ Tuubaa nun ñëpp daana wax ne fii ku fi dikk te ñaan fi la nga ñaan nanguwut ci seetatal sa bopp ci yow la waaye fii àttan na lépp àttan na lépp ndax lépp fi ne alxuraan xasaay di rek fi ne lépp fi ne kon yéen ñii yàlla may tawféex di ay mag di ay ndaw ba jigéen ñi doon togg sax di leen indil di leen jox man wóor na ma ne ñoom ñëpp texe nañ wóor na ma ne itam ñoom ñëpp seen aajo dana faju man man aw aw ma ci sikki sàkk waxuma nag daanu kat dafa ko mën a ma mën a waat li ma leen wax na ngeen xam ne daal sëñ bi xolam sedd na man mi mu fi teg xolam sama xol sedd na kilifa yu baax yi nga xam ne ñooy waa dëkk bi di waa kër Seexul Xadim itam ñoom ñëpp seen xol sedd na te seen xol yu sedd yooyu nag mooy faj suñu aajo àdduna ak alaxira kon na ngeen xam ne aajo yi faju na incha allah aajo yëpp faju na incha allah ku ne na fas ku ne yaa xam la nga bëgg ku ne yaa xam la nga bëgg waaw na ci jiitu na ci jiitu moom Cheikh Mouhamadou Mountakha na ko ñëpp yaa ñaan moom mu yàgg fi lool lool lool luñ ciy teg nag ñu teg ko ci kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen soññi nag ab soññ bu tuuti rek ab soññ bu tuuti rek laa leen di soññ moo di mbirum daayira nag am na ay jafe-jafe mbirum daayira man maa ngi ciy bind mbirum daayira nag am na ay jafe-jafe ci réew mi ak ci bitim réew it ndax seetlu nañu daayira bu taxaw la koy tax a jóg day am solo lool rëy lool day rëy lool mbooloo ma it àndandoo lool am positif waaye buñ doxee tuuti rekk seytaane ki pexeem tàmbalee dugg ci biir seytaane ki pexe tàmbalee dugg ci biir loolee muy dugg ci biir nag ak yàq képp la ca nar te nag am na yu bari yum yàq nag am na yu bari yu mu yàq de xam ngeen ni bu ngeen demee ci dëkk yu mag yi daayira yu mag yi fi nekkoon yëpp li ci ëpp daanaka amut mag ñii fekke woon yu bari bañ daan dégg ci ndakaaru dañ daan dégg daayira gumaa la nga xam ne ko xamoon daan dégg daayira mbambiloor daan dégg daayira tëngéej lu ne dégg nañ fi daayira bu ne fii sos nañ fi lu ne fii dëkk bi sos nañ fi lu ne man bokk naa ci lu ne fii waaye damaa dem ba yàgg ma ne ah moom daal yëf yi daal ko yóbbu rek maanaam daal di wéeg sa positif la nga mën nga di ko def waaye mbooloo yi man dootuma ci bokk te dara warul ko lu dul xëccoo yi ci biir xëccoo wax dëgg yàlla mën naa ñàkk wax dëgg yàlla bu fekkee si Tuubaa rek a taalibe boo seen muy xëccoo njiit ak taalibeem des na pas-pasam des na kon loolu itam nañ ko ci bàyyi xel ndax kat yéene ju rafetee nii xalaat ju rafetee nii pas-pas bu amee solo nii amal njëriñ nii yoon wi hmm? boobu pas-pas ak boobu yëngutu war na ñoo fexe ba téye ko bu dëgër ba nga xam ne dara du ko mën a yàq te leen nag mënut a téye loolu am mooy seenu ànd te nekk benn te bu ngeen xasee ba seet nit koo xam ne yéen a ko seetal seen bopp ba jiital ko ñu bañ koo fakkatal ñu bañ koo fakkatal buñ seet ne gone la buñ seet ne mag la buñ seet ne lii la taalibe moom ku ne war na ko mën a jiite bu dëggoo ku ne rek mën na ko mën a jiite ndax mag ñi dañ daan wax ne ci mag yi ñi toppoon sëriñ bi dañuy wax ne ñu de mun gisee gone gu ndaw guy door a jóg di dugg ci yoon bi dañuy wax ne kii mooy suñu kilifa ndax kii moom mi ngi doon a dugg ci yoonu yàqagul dara bakkaar benn itam amagu ko jenn njuumte it amagu ko kon kii mooy sunu njiit waaye it gone yu baax yi itam dañuy xool mag ñi ne mag ñii kat nun ñoo jiitu ci yoon wi lu nu ciy def tey jii def nañ ko ba defati ko ba defati ko ba fekk ba ba ni ko doon a fekk ba njàngal nu ko kon ñii ñooy sunu lépp bu ña bu ñëpp jàppee gone yi jàppee lii mag ñi jàpp lii kon xëccoo du am werante du am lu ñuy def itam toog waxtaane ko ki jiitu itam bu mu xalaat mukk ne man kat dama yor xel moo xam ne moo rafet ma ëppale ko ñëpp ba moo tax ñu jiital ma ñi ñëpp man leen ëpp xel loolu mënul nekk déedéet ilimaan daa mënut ñàkk ci jàkk rek waaye nag bu ilimaan ji jàpp ne moom képp mën a julli ndax bu jamajee am na ñuy taxaw ci gannaawam ne ko jamañ nga kon ñooñu mën nañoo julli waaye bu ko defee ñu jàppee ko loolu njiit li bu meleen noonu ñi ànd ak moom mel noonu kenn ku ne xam ne da nga ci am warte foo war a def buñ noppee kenn ku ne buñ dajee ba waxtaan ba juboo kenn ku ne la nga war a def nga dem defi ko loolu de buñ ko defee dara dara du yëngu waaye nag dama leen ciy wax lu leer ndax man wax dëgg yàlla dama cee jaar ci yu bare ba dama cee gis yu bare dangay gis ay daayira yoo xam tey buñ demee ci da ci dëkk yu mag yi fu mel ni ay euh, dëkki tubaab yi daayira yu ci bëri coow ya bëri na lool werante ya bëri na lool lañ mënoon liggéey mën na lañ kaar ba sax defaguñ ko te lu ko waral te ñi ngi liggéey lu rëy rëy surtout ci bitim réew ñu ngi liggéey liggéey yoo xam ne maanaam nag doy na waar lool mooy lépp lu yoon wi di dox ak lépp lu yoon wi di def nag ñoom ñi nekk ci biti itam jàmbaar lañ ci ndax nekk ci biti liggéey la rek ngir indi ko ci réew bi ndax nekk ñu ci biti mooy tax ouvrier yi nekk tey jii ci biir réew mi di mën a liggéey ah baax nañ ci lool kon ña ngay liggéeyloo ñi nga xam ne ma war nañoo liggéey di ouvrier waaye ña ngay làmp seen poche projet yi yoon wi itam ñu di def lañ man lépp waaye nag léeg-léeg nga dem ci barab yoo xamante ne daayira yi coow ya day bare bare bari ba nga xam ne man yónni nañ ma ci ba tàyyi fu ne yónni nañ ma fa ngir may defaree ay daayira fii ci biir dëkk bii ci jamono yi jërul may tudd turu benn daayira waaye am na fi daayira boo xam ne dañoo dem ba coow la egg foo xam ne dañoo dem bëgg sëñ Saliou lijjanti ko moom ci boppam ba man nii ñu def délégation boo xam ne dañ ma caa boole ne damay dañuy dem ci sëñ bi ndax moom dana ci mën dara waaye man bi waaye bi ñu demee ci sëñ bi xam nga lu sëñ bi wax sëñ bi def ne man sama liggéey dafa doonu defaree ay daayira man sama liggéey nekk doonut nekk fi di defaree ay daayira yéen ñii di defar daayira yi amul kenn ku ma ci masa woo ba nga dikk ma ne la defaral daayira defaral ma daayira musuma ko wax kenn yéen a am seen pëstee fi bopp kenn ku ci nekk xalaat ba war a def daayira ngeen àndandoo dajaloo waxtaan ba juboo def seen dayre dikk wax ma ko laaj ma aw tur ñaan ma ñaan ma ñaanal leen ci ma jox leen aw tur ñaanal leen bàyyi leen ngeen liggéey waaye kat bu ma fi bëggoon a nekk di defar ay daayira loolooy doon sama liggéey te loolu du sama liggéey loolu nag du su moom liggéey kon loolu gis ngeen mbir mi ni mu demee te am na fi daayira yoo xam ne liggéey nañu fi liggéeyu yu rëy waaye nag liggéey baa ngi nii lii kat tàmbali ngeen ko waaye day war a jëm kanam na jëm kanam loolee sëriñ bi sëñ Moutala waxoon sëñ Moutala waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem loolu daayira yépp a ko war a jël muy seen siyaar boo xamante ne moom la ñuy fab def ko seen màndarga rek ku dem ma dem ku demut ma dem loolu ku ko def ñëpp danañ dem léppay dem kon liggéey baa ngoog te seen liggéey ci kanam université baa ngi nii ku leen ci ëpp liggéey nekk leen bañ egg si ci seen liggéey am ngeen ci liggéey bu rëy boo xamante ne incha allah yaakaar naa da ngeen ci egg ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañ ci egg incha allah kon yàlla nu ci yàlla eggale daraje Cheikh Mouhamadoul Mountakha ba nu egg ci ak jàmm lii ngeen ànd def ko itam nag moom yëg na ko te danaa demaat ba ci moom ma wax ko ko te dana am bis damaa xamul mbooloo mépp lay doon wala ñi nga xam ne rek da nga yéene leen tànn ñu dem ba ca moom ma wax ko ni ko ñii ñoo fa def nangam ba mu leer ko nañ ndax liggéey bu ma ko moom dañ koy defal fii ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek yaa koy fii ku fi nekkal sëñ rek ci sa loxo la nekk. kon mooy mooy ki fi ne mooy Sëñ Tuubaa te lii rek la bëgg. kon ñi ngi leen di gërëm. di leen sant bu baax a baax. ñi doon daanoo ñëpp yoonu murid nag moom noonu lay doxee nag <laughs> mu cee ñàkk ci xorom la ci mënut a ñàkk rek moom loolu dëgg yàlla kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla fan yi gudd ñu dema dema dem ba ñi nga xam ne ñooy doom yeeg sët yeeg apprenti yi nekk ay patron patron yi itam dem ba xam ne ay ay patron yu mag a mag a mag doon xale yi nga xam ne ñoo topp ci ñoom it dem ba mën leen a wuutu wa ma zalika ala llahi bi hamman illa farajtahu wa la illa qadaytahu wa la hajatan min hawaij الدنيا tawil lana umrana sahhil allahumma amin man man man nag ci daayira bi laa bokk ah. ci daayira bi laa bokk وجملة الزهار أنت